Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi le réseau DTL pour vous informer. Euh, tout de suite, l'information en bref. Euh, Sorna Fatimbaké à la présentation, à la partie technique, euh, Abdoulaye Sambo. La cérémonie de prise d'armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a eu lieu à la place de l'indépendance aujourd'hui euh, environ 1867 euh, militaires et paramilitaires ont euh, participé au défilé euh, qui a suivi euh, cette euh, prise d'armes présidée par son Excellence M. Macky Sall. Le chef de l'État, conformément à la Constitution, a accordé son grâce à 824 personnes détenues au Sénégal à la veille du 62e anniversaire euh, de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Les Tchantakon euh, condamnés suite à l'affaire du double meurtre de Medinatullah Salam euh, vont humer l'ère de la liberté. Les dix disciples du défunt Cher Bechotchun, tous condamnés, ont bénéficié de la grâce présidentielle placée sous mandat de dépôt euh, depuis le 26 avril 2012, euh, les mises en cause étaient condamnées euh, pour leur rôle dans la mort de leur codisciple Bara et Ababakar Fall le 22 avril 2012 à Medinatul Salam. Pour terminer, par rapport au risque élevé de pénurie et de flamber des prix en raison de la crise mondiale. Le chef de l'État euh, hier a appelé à une mobilisation générale euh, pour euh, accroître et valoriser davantage nos produits agricoles d'élevage et de pêche. C'est la fin de la partie française. Tout de suite, la version Wolof. mbokk yi eh, dal leen ak jàmm ci tënku xibaar yi moom gi nga xamante ni Sénégal daal na koy moom boppam eh, ñeenti fan ci weeru avril atum junni ak juróom téeméer ak juróom-benn fukk eh, daal nañu koy màggal nag tey ci réew mi ca place de l'indépendance mu nekkoon juróom-benn fukk ak ñaareelu yoon. boo xamante ni nag ñu ngi ci uh, màggal li mel kon nag amal nañu fa ab prise d'armes waaye tamit lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay takk der ah, doon nañu fa amal ab défilé eh, ci teewaayu njaatigeel réew mi eh, Macky Sall. ñu daal di eh, desandi ba tey ci njiitu réew mi ginnaaw ba mu sukkandikoo ci ndey sàtti réew mi di constitution daat nay jéggal lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti nit. yoo xamante ni kon euh, caabi da leen a féete woon ginnaaw maanaam daf leen a gracier euh, li ni mel nag kon euh, daat nay xew démb ci dibéer ji cantaakon yi laale woon ci faat ga nga xamante ni moo amoon ca Medinatul Salaam bu nu sukkandikoo ci ay xibaar daat nañuy am perte ndaxte rek njiitu réew mi daf leen a boole ci grâce gi nga xamante ni démb daat na koy amal Euh, kon nag euh, ñoom euh, tolloon nañu ci fukk ci ay taalibe Seex Béthio Thioune kon nag ci pàttali tegoon nañu leen loxo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril atum ñaari junni ak fukk ak ñaar ci faatuk ñi nga xamante ni ñooy Baara Sow ak Ababacar Fall ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru awril euh, ca euh, Medinatul Salaam ci atuma ñaari junni ak fukk ak ñaar ñu jeexale xibaar yi ci njiitu réew mi euh, Macky Sall daat nay wax ak askanu Sénégal di sàkku ci ñoom ñu daal di booloo fexe ba gën a dëgëral li nga xamante ni mooy mbiru mbay mi mbirum sàmm gi ak napp gi ndaxte rek moo ñu mën a jàppale ci jamono yi nga xamante ni Eh, ñu ngi ci crise mondial eh, te mu nag eh, laal àdduna bi yépp mbokk yi kon foofu la ñu yem ak yéen ci xibaar yi soxna Faty Mbacké moo nekkoon ci kàddu gi Abdoulaye Sam moo nekkoon ci xarala gi mbokk yi noo ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm